ba lay daan milku soo milku soo bébé xarañ milku soo bébé xarañ bu gambi laa ilaha illallah promoteur bi lu mu laax boole ci gambi bébé xarañ moo ñu woon milku soo moom moo ñu woon ginnaaw waa kay bébé xarañ moom lay jeex na oh la la Baye Mbaye milku soo bébé xarañ <laughs> eh, war na ko ndomba da koy daan daan na ko laa ilaha illallah ah ñu déglu arbitre <laughs>